abonné leen ci suñu chaîne YouTube daanaka tout à am na loo ci junj ci intellectuels yi am nañ ci responsabilité. Mm-hmm. Euh, dégg nañu ay intellectuels bien avant intellectuels yi gis nañu trois premiers ministres yoo xam bind nañu. Mm-hmm. gis nañu Mamadou Lamine Loum bind Aminata Touré Abdoul Mbaye wax président de la République na respecté kàddoom réew mi warul jaar foofu euh, gis nañ yeneen intellectuels yu ñu ràññee euh, Felvin ak. Bougar ak Boris ñoom itam bind nañu jàpp ni li fi xew du dara lu fexe bëgg écarté écarter <laughs> bëgg a écarter un opposant politique te dara lu dul euh, président de la république moo nekk di di note li nga xam ne mooy euh, askanam te daf ci war a génn intellectuel yooyu nga xam ne dugg nañu ci débat politique bi ndax du loolu nga doon xaar yow aussi. waaw xam nga réew day toll foo xam ne nii ñëpp dañuy wax. c'est normal. Euh, Sénégal je crois que toll na foo xam ne nii képp koo xam ne réew mi am na lu muy représenté pour yow rek da war a jóg wax mm-hmm. donc sur plan y a aucun problème les trois anciens premiers ministres jàng naa bu baax li ñu wax mm-hmm. li ñu wax lu ñu mën a dégg la parce que gor ca wax ja mm-hmm. si rien à dire c'est-à-dire que Macky Sall moo taxaw interprété constitution Sénégal ñëpp dégg ko mu ne affaire troisième mandat kenn du ma ci mos a dégg loolu rek na ko gars yi fàttali parce que le rappel est pédagogique loolu am na solo par contre li nga xam ni moom la Bougard ak Felwine ak bëris bind loolu d'accorduma ci ditu parce que intellectuel bu fekkee ni da nga jàpp ni yow da nga ni da nga neutre ci benn kii da ngay respecter ce qu'on appelle la neutralité axiologique c'est très important mën na ñëw résumer affaire bi yépp ni dañu bëgg a empêcher Ousmane Sonko mu nekk candidat. sans parler du fait. problème bi lan la mooy benn jigéen bu tudd Adji Sarr moo porté plainte Ousmane Sonko. comprendre nga ñu dem devant le juge. porté plainte pour viol crime. Ousmane Sonko ak ñu àndal ñëpp daal di non non non non la justice ne va pas truc ñu disculper ko ñu acquitter ko pour viol ça aussi c'est un fait important. de menace parce que viol ak menace de mort la ñu egg ñu disculper ko pour loolu daan ko pour corruption de la jeunesse xam nga débat bi aussi nit ñi il faut ñu demaat tuuti ci affaire yi xam nga ñu bari dañ ni viser wu ñu woon corruption de la jeunesse ci pour yi. boo luree ordonnance de renvoi bi nga xam ne moom la Maham Diallo def bi muy renvoyé Ousmane Sonko devant le juge il a visé l'article 324 bi nga xam ne mooy wax corruption de la jeunesse ak incitation à la débauche boo liiree ordonnance de renvoi mi ngi ci biir donc boo nee Ousmane Sonko kenn renvoyé pour corruption de la jeunesse c'est faux. waaw ah, kon lan moo fi indi requalification nag. bu fekkoonte ni. xam bu fekkoonte ni par exemple maa xam. defoon na ko ci réquisi euh, réquisitoire mhm. jox ko juge bi lan moo ci indi ñu. requalification voilà ci loolu. requalification mooy lan. Mhm. Pape mën naa ñëw porter la plainte ci benn délit bu grave. Mhm. ñu dem ba ci biir juge bi xool yëf yi xam ni li nga def wala boog li ma lay jiiñ du loolu. mais li ma lay toppee lii la gën a nuru beneen délit la gën a nuru li ma lay toppee loolu mooy requalification. loolu dafay am ci procédure pénale. mais dans le cas d'espèce c'est pas le cas. xaaral xaaral ma expliquer damay dama koy daf ma dañuy wax ci affaire requalification. loolu bis bu ne moo am ci procédure pénale bis bu ne nga gis fii dans les tribunaux ñuy juger nit pour viol ba pare ñu ba ci yàgg ñu requalifier ko def ko par exemple attentat à la pudeur wala détournement de mineur. comprendre wala ñoom ci doute. voilà voilà voilà justement bref. Mhm. en un mot comme en mille. Mhm. lenn rek laay retenir man ci affaire boobu euh, ku mel ni Boubacar Boris Diop ku mel ni Dougar ku mel ni Felwine bu ñuy wax ci enjeu bu mel ni il faut en parler avec beaucoup de sérieux sérieux sérieux bi mooy lan rappelel au moins lay faits les faits mooy à seen base affaire entre deux citoyens sénégalais bu ñëw devant la justice la justice a pris une décision malgré tous les soupçons li gënoon grave justice bi écarté ko condamné Ousmane Sonko pour un autre motif loolu boo ko rappelé wul ñëw taxaw réduire affaire bi yépp en une volonté d'écarter Ousmane Sonko de la présidence loolu c'est malhonnête c'est malhonnête c'est-à-dire que affaire bi booy booy booy peser benn problème da ngay intégrer toute sa complexité. parce que am na nooy réduire problème am na nooy réduire problème régler woo problème waaye da nga koo gën a jaxase par exemple euh, fii ci livre bi maa ngi bind ñaari chapitre benn bi maa ngi ko tuddee pour pour c'est juste pour introduire de la nuance ci waxtaan wi ces affaires Karim Wade et Khalifa Sall qui ont percuté la démocratie lii dama ko gëm dama gëm ni lii muy affaire Karim Wade affaire Khalifa jaaduwul teguwul ci yoon te lu lu xajamal démocratie Sénégal par contre bi may wax ci affaire Ousmane Sonko qu'est-ce que j'ai dit cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr qui fait l'affaire de Macky Sall quest muy def affaire Macky Sall d'abord c'est une affaire entre Ousmane Sonko et nit ñi aussi il faut qu'ils soient honnêtes man boo ma nee lii c'est pour écarter Ousmane Sonko avant ngay wax da ngay wax ni d'abord c'est un problème privé entre Ousmane Sonko Adji Sarr problème bi dem ba justice tranché ko tu comprends et puis en même temps soo ma nee dañoo bëgg a écarter Ousmane Sonko je veux bien c'est très bien waa léegi est-ce que tu connais un seul pays au monde où un politique menace de mort le président la République man de mosuma ko gis. menace de mort da nga may rey walla ma rey la nga ñëw jóge fële ni damay dem cooki fin gars yi nañ leen topp leen ma ñu dox ci pale bi mais booy wax da ngay wax loolu yëpp parce que xam soo waxul yooyu yëpp mooy waxoo dëgg <coughs> comprendre nga man c'est c'est tout greffe boobu rek laa am contre le point de vue. comprendre nga ma cest à que problème boo koy présenté. Mhm. mu doon lu complexe soo ko réduire. da ngay def sa thèse def sa antithèse.